mooy ñi ñu jox alalu askan accès di ko doxale ni mu leen neexee. Cour des comptes demande ñu ubbi ñu ubbi information judiciaire ana li protéger ministre yi protéger wul daaj yi daaj yooyu tey jii day jii tam léegi avancement bu leer ci li nga xam ni mooy topp gi ñu leen di topp xam nga li tax ñu bàyyi mu jàll mhm. nguur gi ñoo bii moom nañ ci bàyyi xel xam ni kenn du ko bàyyi mu jàll du ci tegu mhm. wóom du ci tegu tànk du ci tegu xam nga la moo tax xadi est-ce que yaa ngi fàttali kur yu wàcc doon ay mécaniciens ki tôlier ñu fanaan loo leen ci rond-point yi bët set nit doxe kolobaan ba buntu Pikine ñu tëj jàkk ay ati xat nit ki way juram dee demul ndax dañuy xex tawat bi mais ñu jàpp population 16 millions wala 17 millions xoj ba ñu ando xex ben tawat am ay quelques personnes yo xamé wu mi luñu ñu leen defalul mm-hmm. yo xam dañoo judd ci réew mi comme ñun amaana sax ñu ëppal leen mais jàpp xaalis bi ñuy dajale di ko doxale ni mu leen neexee te gis nga ci miim dem maa ngi lay wax da ngay reetaan sax boo xoolee li bàyyeeku ci daaj bu ministère de l' application kiif kiif ak daaj bu ministère de la santé seen wax yi teguwul su dee compte duñu ay caaxaan ay magistrat lañu spécialité bu nekk nga ci ci wàllu xaalis bi daañu ko giqi ñoom topp leen yomb na koo ci gis bien koo ci gis parking automobile bu melni ni bay la am mhm. seen i bien daañu ko nangu xaalis bi delluwaat ci réew mi boole ci ñoom ñëpp ñu dàq bu noppi tëj leen parce que li ñu def mais détournement li dafa garaaw Sénégal do ngay def li ba noppi yow tëdd yi nelaw donc mhm. moos yoo xamante kon dañu ko jagleeloon xeex euh, jàngoroy coronavirus ñu tiar caaxi ko mel nag du lu bees Sénégal bu ñu sukkandikoo ci sociologue bi lee di euh, psychologue kile euh, di Abdoulaye euh, Cissé mon mu jàpp ni euh, mauvaise gestion am alal bu lewul lolé limuy muy rek moy mooy pa dërëm bu doom ak bëgg daraja ak itam ñakup daan Abdoulaye Cissé di ci joxoñ nguur gi nga xamantene yenn saa mom mo le di protéger di encourager kon alal goal di luubal tamuy muy momé lo askan wi ñu déglu ko da ngay li mu génne daaw lu ko raw la génne ren loolu nag li ko waral mooy xamante ne nii rapport yooyu da leen di inculper maanaam da leen di jàpp ñu ci bari da gis ne dañ bokk ci état ay gaaw protéger leen na ñoom ñuy def du mujj fenn waaye au delà de cette protection da leen koy jox parce que ñoom aussi dañ bokk ci gouvernement wala dañ bokk ci parti bi nga xam ne pouvoir mais da ngay gis ne société bi si boppam aussi da leen di protéger souvent ñu bari détournement de dañuy booy xool lu ci bari société bi da si am de responsabilité parce que tey buñ la la falee ci benn poste dañuy gis sa waa kër di fecc bu ñu la wàccee nga gis nit ñi di jooy di offisqué wu dañu nekk société boo xam ne souvent justice bu dara xewee da ngay gis ñëpp jóg que justice soit faite que justice soit faite mais justice boobu bu ñu ko appliqué rigueur ci ki nga xamante ne nii moom moo def maanaam ñaawteef boobu da ngay gis ni même société amee wu justice ñoom ñooy jógaat daal dañ koo jaay doole wala dañ koo nangam dañ koo nangam ki moo nekkoon la ñuy wax les sociétés à rapport au cours des comptes boobule kon joxe ay xibaar yu doy waar waaye bu gàcceel jëm ci euh, ŋàbbinu fond force euh, covid 19 junni milliards muy euh, xamante ne kon dañu ko caax caaxe njiitu réew bi moom mi nga xamante ne sax moom mooy général ñu fa tegoon ngir xeex covid faw rek mu àddu ci yoon itam def loole kon la askan wi yëpp daanaka di sàkku ñoo ni ci ak Mamadou Fofana ci nguuru Macky Sall bi de lu jëm ci wàllum rapport yi nga xam ne ma ngay tukkee nag xam ne ñooy amal saytu jëmmal na ko ci ngàbbinu koppar gi de daanaka dañuy utal loolu waaniroo ci benn mbir mu di ne ak lu ci giraawaale daal di bari loolu yi lépp dañ tegandi ci suuf te moo ne de la wi doon xaar moo di ne ñooñu ñëpp ñu daal di leen di boole daal xam ne doon benn waaye loolu nag negam ñu ci bari dara du leen ci fekk moo tax na gaañe ku dalalu askan wi de nga ne ngi nii tey jii nag nekk yow njiital réew mi da a taxaw taxaw mooy war ñi nga xam ne ñëpp daal laale nañ ci mbir munu mel ci rapport cour des comptes bi di rëkk seen ndigg loolu nag ñu war ko def ci gën a jox gëdd lii di askanu Sénégal xew ci yenn ministères yi nag defuñu lu dul naan deretu askan wi nga xamante ne nii nag jamono ma nga nekk ci njàqare tiis ak tamit jaaxle goo xam te nii foo ko takkoon na ko loolu nag kon kenn mënu ko nangu li ci xew nag du dara lu dul tey jii ni askanu Sénégal daal nañu daal di jam paak ginnaaw ndaxte mu ñu xoolee sax ba ca biir daanaka li ni mel nag yàgg na lool bu ñu fàttali ko cent milliards yi nga xam te ni nag nee nañ dugal nañ ko ci lu jëm ci wàllum xeex mbënn mi na loo xamante ne ni tamit lu fës la te gën a yaatu ci lu jëm ci wàllum luubal alal ni ci Sénégal kon nag yow njiit réew mi taxawaay nga xamante ne ni war nga ko ci am war benn nit ki nga xamante ne kii daal dara soxalu ko lu dul daa luubal alalu ne dooti ko xalaatati magistrat yi nga xam ne ñoo nekk day liggéey ci cour des comptes tey ji nizidant bëgg nañu sentir seen bopp ne amal nañu njëriñ seen askan te loolu na ko delloo lu dul ne tey mu di taxawaay bi nga xam te ni moom nga war a am ci ñi nga xam te dubal alalu askan wi ci jamonoy covid 19 mu ngoog Mansour dégg nañ ak bi muy xamle ni bëggub koppar waaye itam bëgg daraja bokk na ci expliquer jëf Sénégal lañu maîtriser gul

Euh, Ibnu Dinar dafa wax ni Ibnu Dinar benn bindkat la bu mag ñi bari xam nañ ko ci ñuy gëstu ci culture arabe mhm. nee na benn bàyyi benn dërëm boo sa ko moo gën maye dix milliards benn dërëm boo mën a sàcc te sàccoo ko mu tuyaa bu maye dix milliards gàmmu ñu tuddee màggal ñu tudd yaa fi yaa fi yaa fi seet seeti yaa fi ngénte ngénte yi yaa fi dëj dëj yi mhm. alors que yëkk ngéntee ko ceet yépp

fexe du ñebe contrairement à qui nga xamante aujourd'hui dafa taxaw ci askan wi parce que le président de l'AN 2012 bi nga xamné jël fonction succédé le président Abdoulaye Wade andal Moy il faut servir et ne pas se servir et non pas c'est-à-dire que na ngeen faire ba askan wi nañuy am di gis sen bop te yeen bu len jox xam nga dafa firndeel bàyyi ba muy jeexal parce que aujourd'hui bu fekkee ne douze mois moom moo des ci li nga xam ne moom mooy mandaawam rapport Cour des comptes bi fësal li nga xam ne jot a am yépp ci dur mu fi nekkee parce que mënoo comprendre xadi mm. Abdoulaye Wade gis nga fi directeur général yoo xam ne dañu leen a nëbb jant bi parce que dañu nga gis ne sous Macky Sall président de la république Bobo Akle, ministre de la république le général boo xamante détourner les deniers publics de gis au contraire

Euh, euh, comité national de gestion des épidémies GE nga xamné dañ ko fi tek. 75 mm. personnes amna ci 24 yo yoo xamante kenn musu leen alors que dañu don fayeku li nga xamné moy sen seen prime jamono jooju ñi and ak ñom mballo ja ñi ànd ak les médecins du Sénégal ñi nga xamné dañu volontaire woon te wara a am prime Yag nañu ne jël fee seeni prime covid 19 kenn fayu len ko nekkate bobu rapport bi

nga indi réquisition bi nga xam ne moom mooy war a tax ñu woo benn preuve mhm. alors que fii la ñu wax ne dañ leen yóbbu ci ay hôtel fay ci xaalis boo xam ne kenn xamul nu mu toll leneen lu nekk mën nañu ko dipp ñooñu noonu yëpp mille milliards bu ñu ko dee calculer sept mille et quelques yi nga xamante ne dépensé nañu ko ci fonds force covid 19 mhm. askan wi gisuñu réclamé sax bëgg leer ku ci mel ne Babacar naa ko fii mhm. dañu ko jël patam patamee ko yóbbu ko yàqu famille am ñu wóolu ko pendant des heures tiital ko uniquement pour mon appui Ta amana loolu mu wax posé de nous y yegg tay ci rapport Cour des comptes bi donc li ci dess mom moy mbir yi au moins yóbbu nañ seen alal sax ñu xawa giif ne mm-hmm. cette fois-ci la justice a fait son travail mu ngoog fa jëmale ko ci leneen ñeel ab ndaje jëm ci code bi ak fiscalité ab patronale des énergies renouvelables au Sénégal euh, ñoom ñoo sabab euh, li ñi mel daal jumtuwaay jébbal ko entreprise yi nga xamante ne dañu cee bokk ngir ñu gën a mën a sëgg ci wàllu euh, ñu xamle itam ni décret d'application yi daal dinañu ci bët ko bu baax a baax ñu ànd ci ay leeral ak njiit li di Mamadou Saliou Sow

loolu nag pour euh, euh, leer ñu dajëf tey gis nga teg ci waxtaan bi ñu am tey ci suba gis-gis yi utewoon nañu lool bi ñu waaye euh, bi ñu waxtaanee gis nañ ne que mbir mi commencé na leer bu office national de l'assainissement du Sénégal mu woyal euh, visitam euh, mu yaran euh, ginnaaw zone de captage à Cambérène Dembe, Mamadou Mamour Diallo Taï, Diamaguène ak Pikine naka agent yu ONAS yi daal ci port ngir wax ak ci condition yi ñuy ñu on ci ak tidian Diallo ak Madani Marega ci ko ba Pikine ku jité office national de l'assainissement du Sénégal ONAS mo ngi ci téré ngir constater avancement chantier yi dem nañu tali mam diara ke nañ fa ndox mu fa taamu bare bare bari wax deug yalla yag na fa lol ci depuis nawet beeg legi te gis nañu aussi jafé jafé yi nga xamni mom la indil askan yi fofu ci zone bobu waxtaan nañu ak maire bi waxtaan ak entreprise bi fa nek am nañ yaakaar ne ay solution dañ ko

bu dee ONAS attan na ko. démb ngi woon daas ngir xol problème yi askan wi di jankontel ci période nawet. station de pompage itam ñu ngi koy euh, tabax ci jiw Pikine Est ak euh, tali Mame Brage yooyu lee la bëgg moy fexé euh, ba wàññi mbënn bi ci yooyu les zones Diallo di dalal xelu maire yi itam muy diwaan yooyu le mu demoon ci seeni ay doléance daañu fexe ko ñu déglu ko. Pikine Est wax nañ ko foofu zone bu bu am solo la dem am na am na station de pompage bu mucc ay bu ñu fa réalisé dans le cadre des dix villes visité nañ ko gis nañ ko station boobu tam pare na léegi mu commencé commencé dox donc am nañ yaakaar ni zone boobu euh, danañu régler seen problème moment en tout cas mooy la partie usée mooy ndox mi jëfandikoo euh, Mansour dégg nañu ko ñu ngi ba tey ci xeexu mbënn mi ci Sénégal tukki bi am na mais bëggoon nañu mu wax ci moom la mu fa fekk la coono ak ay jafe-jafe ci warte taxas genn wet ak ñu xej l'ONAS te xamuñu lu ñu fay def disponibilité ONAS ci ñi nga xam ne pour ñaxtu ay jafe-jafe yoo xam ne moom la ñuy jànkuwante bëgguñu Mamour Diallo be ONAS comme ña ko fi jiitu woon parce que gis nañu bëri ñu ko fi jiitu dañu faane wane woon ak lajjite gu doy waar par contre kii ñu fa jëli nii bés kii sax moo tax ne ñoom fa remplacé woon moom kii fi jóge nii ci liggéey bi mais Mamour Diallo ñu ngi koy gën a interpellé pour liggéeykat yi la tam li may wax moom moo ma gën a xam li may wax dafa am ay liggéeykatu ONAS yoo xam ne dañu nekkoon coopérative d'habitat ñu am ay terrain yu leer te leer ci Patte d'Oie promoteur baa ngi fii déewul ñi moom kër wul te moom moo ma gën a xam dossier bi may wax ñu toog di leen dawloo pour ay politique père de famille buy liggéey ci société ba xaalisam dugg fet nga wax ko défendre wax ko protéger man li ma jaaxal mooy coopérative d'habitat yi xadi koo dégg mukk gendarmerie wala police am problème coopérative d'habitat dañuy ñoom dañuy am coopérative taf jël seen kër tuxu mhm. mais bu fekkee nekkoo police wala gendarmerie léegi nag maamu jàll fi ñu koy

mais non souvent nak directeur bu da fay susciter espoir ci ñi nga xamantene ñoo fa nekkoon dem yaakaar ne ki ñew parce que ki fi indi wul ay solution ci seen ay jambat ki fi ñew dina indi solution ci seen ay jambat et loolu la xaar ci mom pour les travailleurs mais surtout maintenant également ñom ñoo dëkk ci zone yi nga xamne dem na fa visite mm-hmm. euh, buñu ñu dégg enveloppe de 16 milliards de francs CFA

du nekk la faral di wax ci souvent on dégage des enveloppes ngir ndox mi ndox mi melna lu koy wanat c'est-à-dire que mu dugg euh, rire askan wi duñu ko gis mhm. comme li gissé won 6 milliards de francs CFA yi nga xamné dañu ko fee tegoon plan décennal de lutte contre les inondations des jeunes rek aujourd'hui war ñu mën dégager wat 16 milliards ci walu zone de captage mais non avec ces 16 milliards ak ah, def na ak limu mu nga la na doon lo xamante ne dina ko jëfee. mu ngoog euh, Fatou Abdou ñu wutali yaga di euh, diwaan ba nga xamante ne communauté euh, Layeen yi